faji wal di ko déglu mm-hmm. jërëjëf très ravi de sur ce plateau mm-hmm. alors euh, euh, bonjour maa ngi nuyuwaat euh, téléspectateurs yi di nuyoo Fatka ñu ngi si mm-hmm. journée de la femme xaw euh, mois de la femme. waaw di leen sagal. Salma j'espère que yaa ngi tane bu baax tu reviens en forme. maamu si <laughs> rubrique am yi nga xamante ne dafa dafa am solo trop. mais ba tey dañu nekk si mois de la femme. mu ngi rek nga am. voilà mais moom moom day sagal jigéen ñi moom invité góor nga am <laughs> da ngay jàpp loolu aw may nga sagal sa invité. suñu invité sax day sagal jigéen la waaw kay arrêté la waaw loolu ah, sagal jigéen ñi moom. xam na luy jóge ni jigéen. yéen nii di ko yéen ñii jigéen da ngeen di xam euh, kii. wax gomis maa ñoo bokk groupe mois bi rek moo tax. su mois bi jeexee damay delluwaat na woon fa woon. <laughs> loo jëlee di tey <laughs> ah, di nuyu Penda yi. <laughs> Ah, di amaat mbégte vraiment di ñëw fii si plateau bi ndax man fii su fi ñëwee chaque lundi su ma demee damay am lu may yóbbaale. Mm-hmm. plateau bi nekk loo xamante ne nit da si jàng lu bëri daal mm-hmm. man daal mu si for lu bëri macha allah. Mm-hmm. Euh, tey nag euh, tey vingt de mars. mooy journée mondiale de l'eau Euh, Sénégal nag depuis euh, mille neuf cent euh, mille neuf cent quatre-vingt-treize mu ngi koy célébrer ah mu nekk journée boo xamante ne nekk na journée boo xam ne am na solo mais journée boo xamante ne tamit ñu bëri xamuñu ko daal. Mhm. yow xamoon nga ko. xam. démb si guddi nga koy doog a xam mhm. waaw mu nekk loo xamante ne dafa dafa xaw a doy waat te ndox nekk loo xam dafa vital. Mhm. nit da ko solo torop te ñu am thème bu rek thème bu am solo bi ñu wax tamit du duddee ko valoriser l'eau. mais ko gisul wax nan la koy valoriser ndongo. d'accord asalaamaaleykum Paul Kadia maa ngi lay nuyu di la sant si invitation bi. di wax rek diggante góor jigéen moom def si ak sotti la. Mm-hmm. maanaam kenn mënut a dem bàyyi sa morom. dëgg dëgg <laughs> ku ci nekk dafa war a sagal sa morom. tout à tout à fait góor day sagal jigéen jigéen day sagal góor waaye fii laa gis plateau bii ñoom seen bopp rek jigéen ñi la ñuy sagal. Euh, ñoom la ñuy sagal seen bopp. ñu bàyyi suñu gan mu wéyal waay su mënee nekk. maay wax voilà voilà Paul merci beaucoup si invitation bi bañ a fi wax. merci beaucoup si invitation bi donc euh, ni nga ko waxee maa ngi tudd Ndongo Mané Kébé mhm. donc euh, di docteur en économie euh, nekk benn laboratoire bu ñuy wax eh, kii l'AREM laboratoire de recherche économique et monétaire bu nekk FASEC mais tey maa fi tey mooy plateforme des plateforme des organisations de la société civile mhm. sur l'eau et l'assainissement tey nga xam ne maa nekk tey chef de mission bi mhm. tey ni nga ko waxee tey mars li ko li ko waral mooy journée journée mondiale de l'eau tey journée mondiale de l'eau tey Sénégal mi mi ngi koy mi ngi koy feete mm. te jaarale ko tey li ñu naan forum mondial de l'eau ah. ndax tey kenn umpale ne Sénégal mooy organiser forum mondial de l'eau neuvième forum mondial de l'eau donc ren ji lañ ko jàppoon mais feebar moo tax ñu ñu ñu ñu ñu dàq ko ba ba ba ba déwén tey ñëpp dañoo boole dañoo dañoo boole si seen doole donc. fekk forum mondial de donc di di célébrer di célébrer di célébrer journée bi ni nga ko waxee donc am na programme ambitieux boo xam ne tey moo moo moo nekk di daw tey lay commencé ba suba te thème bi ni nga ko waxee mooy valoriser loo donc kenn kenn réerul kenn tey njëriñu lu ndox ndox njëriñ bi ma mais enjeu journée mondiale yi li muy waral mooy day juste benn moment bu ñu lay saisir la pour mieux mieux sensibiliser ñi nga xam ne ñooy acteurs yi si yenn si si yenn problème yi nga xam ne moom moom moo nekk secteur bi tey su ñu naan valoriser loo loo tey am na valeur tey soo xoolee njëriñam ñu naa ko utilité si si si wàllu économie dañuy xool tey njëriñ bi ndox am si ku nekk si wàllu bu nekk tey si wàllu rareté également tamit dafa nekk as boo xam ne tey mooy caractériser loo tey ku naan rareté tey tey ndox dafa dafa jafe te ndax du ndox bu bëri ay usage du naan kes lañ koy lañ koy jëriñoo ki nekk agriculture da koy def ki nekk élevage da koy def keneen keneen même ñu nekk industrie da da dañ koy def tey si dynamique boobu nu ñu defee tey ba nga xam ne tey dañuy mën a sa kii saqana sa saqanal ndox mi te loolu day day fekk si te te temu forum mondial de l'eau parce que thème bi mooy lan sécuriser l'eau pour la paix et le développement mm-hmm. donc tey tey fekkee tey demuñu ba sécuriser tey suñu ressource en eau tey lii naan jàmm tey pour am ko dina jafe la ñu naan développement tey tey tey pour am ko dina jafe voilà un peu en en guise d'introduction di si dool yi nekk peut-être plateforme bi mu wax sax mooy POSES e dafa nekk plateforme boo xam ne dafa regroupé OSC yu bëri ñoo xam ne dañoo yëngu si wàllu ndox ak ak mu nekk espace de concertation de mobilisation mais surtout de dialogue mais de contribution parce que tey li li ñu bëgg mooy tey suñu demee tey politique bi état bi teg en mettre mettre en place tey ñu xool ñu ñu ñuy yëngu si wàllu ndox mi nu ñuy def ba tey ba contribuer si ñu naan une une une donc voilà de manière une contribution efficace dans la mise en œuvre un peu de de l'État. voilà justement si euh, POSEAS boobu sax moo gën a tax euh, tey nga teew fii parce que yéen da ngeen ni acteurs yoo xamante ne mën nañu jàpp ni yéen ñu gën a jege population bi parce que euh, forum ku nekk société civile moom. tout temps da ngay nekk ci population bi di xam seen ay jafe-jafe seen yooyu di tey fu mu toll nii ñun lu ñu xaw a jaaxal thème bi moom den ci soit à la fin parce que fii li ñuy yàq ci ndox bëri na mais euh, fu mu toll nii lépp duñ ko teg ci KMS 3 hmm. loolu dama bëgg a xam ndax loolu prétexte la walla réalité la parce que il faut loolu am pour nit yi nekk à jour si ndox parce que tey ji suñu demee tout le temps on parle du monde rural mais tey ji suñu demee mën nañu yem fii rek Dakar mm-hmm. mais y a beaucoup de quartiers yoo xamante ne mm-hmm. ñu am problème à mm-hmm. te ñu nekk si jafe-jafe geeg nekk si pandémie boo xamante ne nit yi nee nañu bokk na si lu koy lu lay siy aar ngay raxas sa bopp régulièrement mais ces gens là qui n'ont même pas de l'eau à est-ce que dinañ mun a wuy si loolu ñu bëggoon xam nag foofu laa bëgg vraiment nga taxawal ma si KMS 3 boobu ba xam ndax moom mooy problème bi wala dafa am yeneen difficultés yu si am yu dul loolu donc voilà donc question am na solo donc li may wax rek mooy déjà féliciter état bi parce que état bi quand même il faut reconnaître mu ngi def ay efforts pour prise en charge wàllu ndox mi dafa nekk domaine boo xam ne dafa dafa dafa xaw sensible ndax ku ñàkk ndox waxtu rek wala ñaari waxtu rek daanaka da nga ko da nga koy yëg si si yow sa wàllu bopp waxatuma nag si wàllu communauté wàllu population donc état bi def na jéego am solo donc point bi njëkkan moom état bi reconnaître am na problème tey askan bi amuñu ndox ni ni ñu ko bëggee njëg bi cher na donc accès bi demeewul demeewul noonu Dakar xëy na ku ne am nga sa robinet sa kër même bu dee day tijji deux heures par trois trois heures par semaine mais soo demee si àll bi am ñoo xam ne tey amuñu loolu donc dañuy dox ay kilomètres ay kilomètres ay kilomètres pour am am ndox dellu si loolu état bi defoon benn réforme réforme mooy si wàllu si wàll si si si si si wàllu kaw gi donc ñi nga xam ne dañoo bu njëkk ñoo ñoo doon gérer seen bopp ndox bi ñu naan ko Asifor mhm. état bi mu indi OFOR mhm. OFOR maanaam nekk tey

jàllul ni mu ni mu ko bëgg woon naa tax ma def évaluation bi moo tax tey état bi ngi taxaw tey def évaluation boobu tey bi kii hydro rural bi nga xam ne moom moom la defoon pour xool problème bi fu fu mu féete mais mi soo ñëwee si wàllu urbain bi dafa dafa am solo ndax li nga ko wax ne bëy na initiative yu ñu jël donc ñu yaakaar mu mu nungu initiative yu xaw a yu xaw a maanaam di di di di di mais quand même je pense que lépp li am solo mooy day concourir pour jël en pour prise en charge wàllu ndox si si askan bi wax nga ko mais du du Camesta 3 du du Camesta 3 kese. gis nañu fi usine usine de dessalement bi am am fii tamit mais lépp li am solo c'est-à-dire tey soo jëlee réseau conduite ndox tey Sénégal dafa yàgg même su indee usines yi gën a baax tamit il faut. conduite bi ñu ñu ñu renouveler ko soo xool tey soo dox sooy dox bi Dakar di gis ne tey am na conduite yu bëri tey ñi ngi gas di di di tegaat ay tuyaux di changer tuyaux parce ndox mi ñëw pression moo àndal dafa war a tuyau bi il faut il faut il faut mu ko te suñu demee tey ba indi usine yooyu changer conduite bi yaakaar naa ne. problème bi di dina réglé wu mais ñun rôle bi ñu si mën a joué mooy ñun ñun OSC e, ni nga ko waxee ni jege nañ population bi ñu bëri tey ñi ngi si ñi ngi si gox gox gox gox gox goxaan yu bëri si Sénégal di di di di réglé problème askan bi ñun li si mën a joué mooy en terme en terme d' ingénierie sociale état bi mën a def ay politique pour population bi mënuñu ko peut-être percevoir utilité bi dans l'immédiat mais ñun rôle bi mu ñu jouer pour mu mën a communiquer renforcer communication bi dimbali état bi si wàllu communication boobu di di naxasal en fait population yi donc li am solo mooy ñun OSC tey ban taxawal yi si mën a def pour xool ni ñu accompagne état bi pour communication bi entre bu gën a fluide entre autorités yi ak ak ak ak population yi ba nga xam ne tey mise en œuvre problème yu bëri tey non seulement ni ñu ko comprendre comprendre enjeu yi parce que nekkul problème yoo xam ne tey dañ koy régler dans dans un mois deux mois dans un an mais c'est c'est dans la durée te yaakaar naa ne durée bi état bi jël fekkee. politique yëpp ñu ñu ñu envisagé mettre ñu en œuvre donc tamit ànd di population bi ànd ceeg moom je pense que dina mën a régler pour problème yu bëri mais tamit am solo mooy ñu def anticipation parce que soo xoolee tey réseau bi li fi nekk yëpp bu njëkk peut-être population bi bi mu mënoon jël en charge population bu néew la mais tey xool population Dakar. xëy na yeneen régions yi sax xaw na tane mais te Dakar population bi évolué dafa dafa dafa am doole donc ay donc non seulement en terme de surface parce que léegi ay immeubles lañ dañuy en hauteur donc da gis benn zone boo xam ne suñu ne ñii ñoo fi yeewoo tey da nga ne noonu mu mënul nekk te ku nekk bëgg nga am ndox ni ni ni ni ni nga ko bëggee donc loolu dafa laaj mu am anticipation boo xam ne en terme de politique pour mën a jël en prise en charge mais loolu loolu nag moo tax man damay xalaat parce que fu mu toll ni ñun Sénégal ak fi ni a atteindre les objectifs euh, du développement durable parce que mu toll nii y a une lenteur boo xamante ne te lu ñu si war a def defuñu ko comme tu l'as dit ñu bëri ñu ngi tabax en hauteur mm-hmm. Mm-hmm. te loolu aménagement du territoire da ko war a régler parce que c'est des choses yoo xamante ne nit mënoo nekk yenn hauteur yi dëkk yenn zones yi ndox bi di yéeg donc c'est des choses yoo xamante ne diñ ko war a jël en compte mais su fekkee ne da bàyyi leen di naan maa ngi lijjanti rek tal yi baax oto yi euh, ndox bi mën a war a jël en compte jël ñu ne en compte c'est un mooy dama ne ndox rek laay lijjanti mbirum ndox laay lijjanti tey ni nga ko waxee sànq aménage du territoire dafa am solo état ya yàggul dara élaboré na valide na benn plan national d' aménagement du territoire donc loolu am na solo et puis day jël en charge aspect boobu bi fi problème mu inondation yi ñëwee ñi ngi naan 750 milliards def nañ ko si si pour pour kii inondation bi mais xamuñu 750 milliards yooyu dafa dafa am partie boo xam ne c'est c'est pour xool nu ñu mun a aménager suñu espace ba nga xam ne tey prise en charge ndox mi di di di di di di di di dina doon lu lu yomb. je pense les les enjeux sont donc problème mooy stratégie ba stratégie efficace justement la ñu mën a développer. pour xool nu ñu ko jël en charge mais dafa nekk problème bu transversal bi nga xam ne tey nekkul ne léegi acteur ndox kese ñoo ko mën a régler santé am na solo. solo agriculture am na solo élevage am na solo moo tax ñu naan l'approche GIR mooy gestion intégrée des ressources à à eau dafa am solo ba nga xam ne tey te Sénégal comprendre ba nga xam ne récemment rek avec la de Banque mondiale Sénégal def na benn étude portée sur la sécurité en eau au Sénégal quelles sont nos ressources en eau yi nga xam ne moom la moom am nu ñu ko mën a gérer ba nga xam ne. askanu tey bi nañu am ndox mais tamit askanu ëllëg nañu am ndox donc mu nekk dans une perspective nga xam ne day nekk développement durable. Uh-huh. Uh-huh. rek ci benn sens parce que c'est bien beau eau accessible ci ñëpp parce que comme nuñ koy waxee loo est vitale. Hmm. mënut a ñàkk ci dundu dundinu askan mais est-ce que yéen ngi bàyyi xel aussi qualité bi ñuy servir askan bi qualité de l'eau bi. donc foofu sax dama ciy yokk comme ça uh-huh. ma yokk ci euh, euh, gis bi euh, qualité ndox bi hmm. mais tey jii man je pense nit yaa ngi focaliser wu mais am na benn tendance bu xew temps yi moom mooy euh, eau minérale yi. Ah. Mm-hmm. mais dañ ci gis ay yoo xam ne euh, maanaam euh, de manière artisanale. Uh-huh. dégg nga gars yi dañu ñëw rek jox la mbuus defal nga gis ñu jël étiquette te ñu bëri jàpp nañ ne am na yoo xam ne ñu ngi koy defaree ci kër yi. léegi nag loolu loolu loolu loolu tam defe naa ne nekk na mm-hmm. euh, loo xam ne il faut que maanaam état bi xoolaat bu baax loolu parce que mm-hmm. ñëpp ngi dem ci loolu mm-hmm. au delà de ça sa coach ndox bi bi coulé ci robinet bi qualité am d'abord waaw loolu ça c'est un problème loolu déjà war nañ si attirer attention qualité eau boobu eau boobu moom kenn waxatu ko ba tax na les yi dañu dem ci eau minérale dégg nga mais eau minérale du ñëpp ko mën a am du ñëpp ko mën a am donc voilà je pense que qualité bi moom da nekk loolu problématique sànq évoqué naa problème conduite yi conduite yi su fekkee conduite weñ la day dem ba final di infecté day day day la qualité bi mm-hmm. mais je pense que tey am nañ ay normes yoo xam ne tey usine ndox bu jógee forage ba wala bu jógee usine ba dañ koy traité ba nga xam ne dina dina respecté yenn normes yenn normes normes qualité yi donc xëy na diggante bi tamit mun na fi am si yenn conduite yi ba nga xam ne ndox mi eh, ndox mi mun qualité mun na changé mais am solo bi am aujourd'hui ak ak ndox bi ñëw ñëw ñëw ñëw si ñun mm-hmm. donc day war wane lien direct bi nga xam ne day am eau assainissement bi mm-hmm. ak également ak ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun ndox ndox bi ñuy naan mm-hmm. da ngay léeg-léeg naan ndox boo xam ne tu as l'impression que day day xëy ndox bu donc voilà donc yooyu xam ne tey am na communication boo xam ne tey xëy na si yenn zone yoo xam ne tey mën nañu am njottu ne ndoxu yi yi yi yi yi génn si kër gi. day delluwaat si kër gi à à tey su sunu sunu robinet yi. mais mu ñëwaat si si si mbuusu ndox yi ni nga ko waxee sànq je pense il faut il faut ñu ñu encadrer quoi. parce que tamit y a un aspect mercantile bi nga xam ne moo nekk derrière. ku nekk yaa ngi bëgg a xool. noo yëngoo ba am am si dara. te du nekk eau minérale sax parce que eau minérale da da da daa fu muy jógee day nekk eau de source. mais day nekk eau filtrée lay nekk rek simplement. au filtre lay nekk léeg nga jël sachet boo xam ne tey da yàgg da nga xam ne ni kii goût bi muy joxe ndox mi fañ ko jence yàgg na donc dafa laaj ñu ñu ko ba nga xam ne tey nañu mën a nañ ko a gën a mën a contrôler mm-hmm. xam ne dafa wax ne. Mm-hmm. Euh, ci usine bi lañ koy traité. Mm-hmm. mais est-ce que vraiment traitement bi. Euh, kii la waa am foofu qualité bii muy wax loolu la. Uh-huh. et puis yéen yi est-ce que ay dox ay jéego jëmale ci loolu parce que bien beau aussi ngeen reconnaître loolu mais man concrètement yan jéego ngeen doxagum pour loolu. donc voilà je pense que loolu am na soo xoolee tey am na ay forages yu nekkoon yu nekkoon fële. yu nekkoon caaroy uh-huh. dañ leen a décroché maanaam dañ leen servir ndox après ñu décroché parce que gis nañu qualité bi jógee foofu parce que am na norme yoo xam ne ay norme OMS la il faut il faut que forage ndox mi jógee forage nga xam ne tey ndox mi dafa ñàkk je pense que tey ñu ngi veillé si si qualité boobu nag je euh, nekkuma fii pour défendre état bi parce que man mhm. je suis de la en fait donc man loolu te état bi amul intérêt forage bu jógee ndox bu jógee si forage bi mhm. qualité bi day respecté yenn norme OMS yi dañ mhm. dañ ko homologué bu balaa moo génn xëy na mën na altéré wu diggante bi ñu génn forage bay ñëw suñu suñu kër yi te yooyu yëpp je pense que même ñun population am nañu si joué. am am am am nañu rôle si joué. Hmm. ci rôle boobu Kadia si tu me le permets concernant population bëgg naa ñu taxaw si parce que tamit quoi qu'on puisse dire euh, euh, Kadia mm-hmm. euh, yaaxum ndox bi nga xamante ni am na si dëkk bi aussi war nañ cee taxaw ñu wax si bu baax monsieur Kébé mm-hmm. parce que di nga dem yenn kër yoo xamante ni da ñëw la ngaa nax yooyu noonu peut-être ñooñu di def loolu est-ce que xam nañ ne loolu ñuy def dina amaat répercussion ci ñun ñi nga xamante ñu ngi utiliser ndox euh, tous les jours. parce que gis nga mm-hmm. xaar moom parce mm-hmm, si yàqum ndox boobu. Mm-hmm. parce que comme dañoo ne valoriser l'eau mooy la thème. parce que dem nañu ba xam nit ñi yàq ndox boo tax boobu. mais li ñu si yàq thème kii ndoxu kër yi lay wax. mais ndoxu taw yi inondation yi. mais loolu di war a utiliser. defaraat ko on a quantité d'eau yoo xamante ni ñu koy yàq loolu fan la fan ngeen si tool est-ce que yéen a ngi siy jàppale état bi parce que yéen tam état bi yéen a <laughs> il faut yéen leen buux quoi comme ñun journaliste ñu ngi siy ay xeer mm-hmm. yéen tam da ngeen nekk si ginnaaw di leen wax nii ngeen doxalee ne la comme ni mu la waxee rek yéen gën a jege population bi d'accord d'accord da nga xam journaliste bokk plateforme bi ah. donc ah, am <laughs> mm-hmm. que tey dafa yow nga bàyyi sa web ne mu mu mu ubbeeku. Uh-huh. facture ñëw nga ne sa facture dafa yokk pourtant